yàlla rek lu yàlla def dafa gën mënoon naa demee leneen mënoon ko tey ñu fekk lépp ndax dégg nañ fi mooy nekk bu tawee dégg nañ fi ñoo xamante ne nii taw bi moo yóbbu seen bakkan mais comme ñun am nañ ci dee rek sant yàlla. chaque année situation bii la ñuy dund kay saa bu tawee taw bu mag bii nii dañ koy am moom. xanaa kay mu bañ koo taw moom mais millimètres yi moom saa bu ko tawee rek ñu am ko moom fii moom sonn nañ lool lool lool lool lool wax dëgg yàlla. loolu moo fi nekk quoi xam naa ne moom war nañ noo dimbali nag conduire bii moom nu àggale ko ñàkk àggale conduire bi daal moo nu indil ay jafe-jafe quoi mais xam naa bu conduire bi àggoon moom incha allahu rabi moom ndox météwaay bii moom dina wàññeeku quoi nan nu dimbali rek àggaleel ñu conduire bii nii mu àgg loolu rek suñu jafe-jafe quoi amul beneen jafe-jafe bu dul loolu ñàkk àggale conduire bi nu indil ndox mu bari nii yëpp quoi man naa ngi depuis 1960 96. 96. Mais chaque année, c'est comme ça. Quand on habitait ici, c'était pendant la, euh, euh, sécheresse. C'était une sécheresse, pour les gens habitaient, habitaient, habitaient. Et maintenant, avec le changement climatique, nous revenons. C'est comme à Dakar, euh, nous continuons xam nga wàqinaan comme son nom l'indique ici parce que c'est wàqinaan rek boo mosaan gase un mètre tu trouves de l'eau c'est notre pilier ce dérapage dëkkuwaay yëpp a suñu bagage yëpp a yàq am nañu problème yi pour ñu ci lii daal ñu jël wax dëgg yàlla sonn nañu mën amuñu moyen nag pour a demal suñu bopp dara nit ñi ñu mën a dimbali li ñuy jéem am kës néew ñu ngi ci jéem te dara sotti li ñu am ci suñu moyen kës néew ñu ngi koy jéem mais daal vraiment sonn nañu suñu njaboot yi gis nga leen ci biir ndox yi la nekk ñoom ñëpp ngi nii kenn amul loo def moo taloo lekk taloo naan mënoo toog mënoo def dara ndax coono ndax ndox mi xëy na yàlla agul mais bari na coono torop torop torop nun daal sonn nañ daal vraiment te lépp kanaal bi moo ñu koy yóbbee parce que ndox mi demul ci suñu ginnaaw kër yi fii lay nekk doon fi def taa foofu yëpp lu jóge ci biir Thiès fii la jëm si amul fu mu jëm ñu ngi suñu ginnaaw kër yi nan la ñuy def amuñu yenn pexe ni ko sama borom kër daa sonn nañ trop ku ñu a dimbali daal te jàpp leen ci lii dina ndax fi ne ni ngi nii borom suñu xale yaa ñoo togg añ sax tey ji ñu ngi nii ñoo togg añ ndax ndox nañ dara desut dara desul lépp a waaw ñu ngi nii ñun daal ginnaaw yàlla ku ñu dimbali lañ soxla ñu ngi jooy ndimbal daal ku ñu dimbali ñu jooy waaw ñun daal fii problème bi mooy conduite tondir bi bu feesee bañ tijji onage bi dafa am ay côté yoo xam ne day toj bu tojee nag mooy moo moo ñu indi ndox mi mais bu fekkoon ne ndox taw bi jógee ci asamaan directement la def nañ nii ndox ñun ñun ñuy ñu nekk ni ndoxu poche yi tondir yi dañ tijji waaw euh, ndoxu onage yi moom dañuy tijji tondir bi fees mu am ay fenêtre yu ñu ci defoon nag fenêtre yi dajeek mooy ñu indi loolu bi dafa àggul <laughs> xam nga liggéey bu fekkoon ne àgg na mu dem ba pont

parce que tay a donc li aussi que na trop trop trop trop trop on est obligé ak d'observation muy de ñu jël situation nous avons ñaan depuis quelque temps il faut impérativement la délocalisation du poste et nous interpellons la mairie de Thiès Nord la mairie de ville le sous-préfet le préfet le gouverneur le, le président du conseil départemental cette situation ne peut pas continuer donc il faut y avoir une solution définitive Nous, mënuñu chaque année bagage yi sur suñu documents yi ñuy liggéey CDS bi document yi Et c'est yàqu UCB bi document bi qu'on va prendre à zéro chaque année loolu mënatul a nekk donc nous, ñu ñaan da yàlla tax la délocalisation du poste Nous, mënul ñàkk c'est impératif

franchement ñu ngi leen di ñaan ndimbal lii mu ngi bëgg a métti at mu jot koñ bi ñooy mujj futti ko xolal xale yi tey xolal mag ñi jigéen ñi kenn desul ci biir poste de santé di bale di feebar pour mën a reprendre la situation suba sax jagalu ko ginnaaw suba jagalu ko te lu toll ni ngent kàcce bu toll ni ngent ak ñu mu toll vraiment mérité wul lii lii mérité wul franchement ah un poste de santé qui polarise quatre quartiers yaa ngent yaa Escale yaa Thiapong yaa Thionna tous ces quartiers a un seul donc lu mel noonu bu dee mu ngi am mënuñoo am benn situation sanitaire bu stable chaque instant tey ku doon accouché ku pali ku grippe woon ñoo la doo mën a hospitalisé tu nga dem dans les cliniques wóoto yeneen centre de wala yeneen ak yeneen vraiment ñu ni ñaan yàlla tax na gouvernement bi dimbali. ngeen jàkkaarloo hôpital bi ci suba ba léegi malade bu fi ñëwoon tey war nga accouché tey doo am foo tëdd lali dañoo tooju ba si kaw man maa ñëw xuus xool ndox mi ma ni jaadoo génn leen xale yi ñu ñu xoos dañoo sonn lekk ñu naan ñu suñ yëpp dañ ko indoon yaa kenn añu parce que bër la ba bii ñu nekk nekk si kër yi di ngacc di ngacc mais dañoo sonn dañoo ku ñu jàppale parce que sax tey di ku ci am doom fi nga amee doom xale bu ci judd fi nga judd boo xam ne man la fii